Yoff la jógee xam ngeen ko alias Biram diggante ak fils de Zallo fa ñu mujjee kii combat bi mujj xam ngeen ko dafa naa dañoo kase verdict ba su ma muy mbër moo xam ne ni tamit ne woon na ci benn lancé dem ba benn moment mu ami jafe-jafe léegi nag ñoom ñaar ñu bool leen kenn moom la ma waxoon laay waxaat rek waa Bawol moom xam naa ne bu dama naan ñoom alias Biram mbër mi doy na waar de ah kaay caat doomu yoof caat <laughs> caat maa ngi lay bëgg. waaw delloo naa la bëgg Babacar alias sant yàlla bu deux micro laa yor mais man daal li may def mooy alias yaa téye micro boobu kii dinaa ko téel mu wax yéen ñaar jàkkaarloo leen ak caméra yee defe naa ne yéen ñaar ay xale ngeen yoo xam ne nii defe naa ñiy toog rawatina suñu papa père Babou Mbale ak ak suñu papa Jaxate ñi fi toog ñëpp xam nañ leen ngeen ay xale yoo xam ne am avenir moo tax ngeen yegg si tey fii ngeen yegg si parce que bu ñu leen xoolee ci bindu mën nañ leen a bañ a jàppee ay mbër waaye nag ku seq ak yéen géew moom mën naa ñandu fomp ci ngembam ndax la ko waral mooy seen mën a bëre ak seen dëgër ak seen am fit loolu moom nekk na ci yéen ñaar ñëpp moo tax nag ah Vox Arena taamu leen pour bëgg leen a bëreloo te yaakaar naa suñ leen bëreloo xeex dana feeñ bëre dina feeñ caat maa ngi lay bëgg di la ziar di la ñaanal jàmm di ko sàkku si yow. yee Babacar maa ngi lay fay ginnaaw bi ñu sante yàlla julli si yonente bi di gërëm sunu ñaari waajur ñu ngi nuyu waa Ngor Wakaam Yoof bépp di nuyu waa Yoof di jël nuyoo waa di ko teg su loxo xalifa général Baye Abdoulaye Thiaw di ñaan yàlla mu yàgg fi te ànd ak wér di nuyu Cheikh Mansour Diouf mi nga xamante ni moo fa nekk nekkal Serigne Touba di nuyu waa Yoof yëpp waaw di. nuyu presse bi di nuyu sunu kilifa yi nga xamante ne ñoo fi toog père Max père ñoxo père Babou ak promoteur bi di nuyu sampion yëpp. Mhm. waa ñu ngi lay bëgg bu wér. alias maa ngi lay bëgg di la ziar. waaw gannaaw baatu onze billah bismillah inna wali yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. E, yàlla rek ay dëgg te mooy borom dëgg moom mi jox Bamba dëgg ba tax mu daal di signé. Bamba ne wasalaamun xalal ma ni tabax lu daa jërëjëf Serigne Touba. E, gannaaw bañ sante yàlla julli si bi di gërëm suñu ñaari waaju la muy Serigne Bassirou Fall alxuraan di wax yal nañu suñ borom taas si barkeem parce que jour bi ñu fiy mujjee def signature dañoo xëy suba mu làqu muy suma wasila waaw di siyaare tamit sëñ Ngunda Bas alxuraan mi nga xam ne mooy xalifaam ak njabootam bi sëñ Bada Fall ñëpp di siyaare Serigne Makhtar Mbacke Nouré nii di siyaare sëñ Maam Cheikh Fall Ibn Cheikh Ablaye Fall nag borom farba xam yëmbal di siyaare tamit Serigne Mbacke Boussa Mara di siyaare tamit waa kër Maam Masamba Fall ngaa ci yëpp di leen bëggee <laughs> wasalaam. mais yow li ma lay laaj. dama téye micro yi teel kii teel kii moom nga ne mooy wax lu tax nga jiñ kii wax kat. non waale suñu père Max waaw parce que moom suñ papa wax jéeg fa yàlla boo xam ne fu ñu fekk dañuy conseil dañuy wax si lu baax ak suñ papa ñoo ko bàyyi père ak promoteur bi nga xam ne moo siyaare assistant yëpp yi fi nekk yëpp waaw damaa xam ne moom moo féetewoo wax ji rek. lu tax mu féetewoo ko. waaw <laughs> non caat caat ku ko xam-xam ne day wax. jox ko rek mu day wax wala day bëri. no caat wax la gën a mun de wax ak fecc daal xam naa ne fi mbiram la moom. mënta bëri. non du ma ne mënul bëre ndaanaan la caat boo xoolee ay combat am xam ne ndaanaan la. seetaan nga lim mu jëbëre. waaw dernier combat bi non rek. caat alliance doom yaay. Ah. <laughs> alliance daa am si lu mu rek moo tax mu war a caat. Ah. dama ñëw nekk si ay dynamique yoo xam ne ku mën ne ma woon di caat période bi ma la déedéet. ndax da ko rawoon. non yow am na loo xam ne jaru naan maa raw ak rawuma ñi ma ak fi ma jógee. Hmm. du woon yow xam nga ne man du moom laa waroon a alliance nu mu demee nii mais ay morom lañ rek maa ngi siyaare waale tamit bu baax sama grand ba Koyaate ko ne maa ngi siyaare bu baax. yow ñaata combat nga def. maa ngi si onze combat. ñaata victoire. sept deux défaites. sept benn. ok am na solo. sa jiñ na la wax ji. ne du woon heure bii ngeen war a wax yéen ñaar wala ngeen war a bëree. non xam nga man ni ma bala maa wax leen man damaa def samay preuve moom moo fi nekk di taxawaalu ba man ma fekk fi. ah day taxawaal dama koy ko de. te wàllu wax bi mu wax man damay wax man doomi buur géwél laa. su ma waxul damay tooñ waxamay may damay wax ba ko te man xam nga ne damay wax damay jëf yaw dama lay duma dama lay daan mënoo si dara déggoo li ma lay wax. dinaa daan sa kanamu naan say lex génne nga naani doom sa amoo damay sat lex yi laay tepp yow naa la duma duma yu metti ngay jaay yow mi ay kii ay baay bajaan lay naan yow ay lex kase nga am. ay baay bajaan muy jaay ci réew mi. kii ay baay bajaan lay naan ay naan yàqu. ak lépp lu naan yàqu yi moo ko moo tardel carrière man xale laa. Eh. xale laa damaa nekk suñu yoon damay liggéey damaa dëgër këj dama lay duma dama lay daan aw ma dara lu ma lay neexal aw ma lu may xalaat si yow. foo xam a say naa la duma naa la daan caat nga ne di nga ko lan teel micro bi. naa ko ko daan. xool leen caméra yi xool leen caméra yi. kii xam nga ah. voilà parce que boo ko defee ni micro gars yi duñ jàll de gars yi mënoon nañ bàyyi ñu continuer si ni ñu newoon rek ah. acca kon gars yi waaw nga ne nga ne doomi Baye Badiane fu Baye Badiane fu muy jaayee doom yi Baye Badiane lay naan xam nga Baye Badiane mooy mooy doomi ñag yi di réyal kanam kanam gi rek rëy man damaa dëgër kii bis bu ndalantee man man mën a góor suñu waatu du bari bis bu ndalantee moo xam ne du ma moroomam ah. kii soobee sunu borom. buur bu soobee sunu borom. dama koy daan dama koy daan ci boo xam ne da ak lépp lu may ut si yoonu kër Serigne Touba. Hmm. bu dee naan naa doom wala ma naan protéine wala ma naan sirop yàlla na ma famille Serigne Touba bàyyi. billahi wallahi wa taala xam nga la moo gën a bon si nit. Hmm. xam nga nit koo xam ne da ngay toog yow wax rek nga am si lambo. day wax rek billahi wallahi wa taala bu dee maa ngi naan bio faar sax lépp lu may ut si yoonu kër Serigne Touba yàlla ma ko am. billahi wallahi wa taala baay ba ak kuy bàyyi ba jaan loolu mooy mëninam man garaawul caatu ngéwél dama koy dama koy dama koy dama koy nangul mais xam nga ne kii bu taxawee coow moo bari mu ne fi di wax at yi passé yow yaa ngi fi journaliste nga xam nga tey sa combat daaw dama progressé sama carrière man ñaanuma kenn man du ma doomi mbër du ma tanti aw ma tanti mbër aw ma maay mbër man xale laa doomi buur géwel laa lépp lu may nekk sama gëm-gëm laa ciy demee te barki maam Cheikh Rafal bu taxawee dañuy daje. ah si rëkkilal booy booy yi nii. booy yi du ma wax ñoom maa man. billaay sama maam barki alquran kii maam Ousmane Diouf bu igi séeréer mooy sama maam. séeréer si ndey séeréer si baay. comme moom du séeréer mais man damay doom ñaari séeréer. xam nga daa am loo xam ne. daa am loo xam ne kii ñëpp xamee nañ ko ko. muy caat dafa munee wax. damay wax damay bëre damay. mais na Serigne Touba laa lay génneel Babacar kii. damay wax di jóg ah boo paree jox ma ma wax boo paree jox ma wax. mais yow Thiat ñaata combat am yow. ñaata combat nga am man man neuf combat laa am am sept victoire deux défaites. Ah, déggoo ma man lu may def man la intéressé yow toogal fii xam nga yow këngaa nga àdduna dalaa raw. waaw ah, la këngaa laa mais si ndey ak si baay tamit mooy baay doon këngaa. mais caat séeréer man séeréer barki maam Seera Fall man li ma yaakaar si ay séeréer xamante nañ mu ne la yaboo ma rek yaboo ma keroog waxoon naa Babacar ay wax la bari booy bii nii kii am da ko daa nar a yàqu kii daa topp àdduna am di bëytu rek kii du mbër kii dama koy daan day bëytu rek kii dama koy daan barki alxuraan nga nee na yabu ma ko bés bi ñu ngi wax kii bis bu duggee ci bi barki maam Seera Fall dama eh, koy yàllu bari doole waxtaan lamb la maa la man man ñi nga àndal man koo yaakaar. naa la man daal li ma la mën a wax mooy yow nit ñi nga gis nii di takk micro. barke mais yàlla xam na ne Thiat maa ngi yow xamante nañ bu baax man mbayaar laa gis nga mbayaar mbayaar laa mbayaar te damaa war a dem doodu ji góor kii dama koy non non gis am yoo xam ne ay mbayaar laa ay mbayaar fas la waaye bàyyi ma waxoo mbayaar boobu ñoo la gën a doon ay tokaat bàyyi see ngay def ngaan mbayaar léegi baax na taxaw waa taxaw leen léegi c'est bon léegi doy na waa non de non taxaw di ngeen tàggoo non non dama bëgg ngeen tàggoo taxaw leen léegi léegi kay neer yi tàng na taxaw leen ni alias jubantikul ngeen jàkkaarloo caméra yi léegi li ngeen waxante leer na ku ci ne wax na sa morom lam ko bëgg def yàlla nañ fi yàlla bàyyi ba bés ba euh, caat wooteel. wa waaw maa ngi sant yàlla bu baax di sant waa yoof di sant ngor wakaam yoof ah di sant waa tubaab jalaaw ñagal yeen ndi tax todda ah maa ngi gërëm secteur boobu yëpp di gërëm waa Fadial di gërëm waa Casamance bu baax a baax a baax di gërëm maître